قال الشيخ عمر الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل الثامن من كتاب النفس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم فلنعد إلى كلام الشيخ الشعراني رضي الله تعالى عنه فنقول قال إلى آخره ومن قبل ما متلجيت لولو نيجي يمون في منه wa fi jawharatu tawhid dañu reprendre wax jooju parce que dañ ko dañ ko sax sax yi dem te taf tafe ko waaw te le problème c'est tamit. Euh, hmm. version bi dafa li ngay casse tellement version bi dafa ki tellement. que poème bi sax amna hmm. partie bo xamni bokku ci poème. ci phrase bi la te dañ ko duggal ci poème. lolu <laughs> tamit foog ñu wax. voilà ak ci fin bi. <laughs> ak ci biir poème bi tamit. amna na luñ ci duggal ci biir. waaw fi fi fi voilà lii mu ne kon wa woo fii fi wa. voilà woo fii boo demee ci jawharatu tawxiid bu imam Ibrahim al-Laqaani rahimahullah ci imaamu Maliki yi. Mm-hmm. ci jamonom mu ne wa malikun wa sairul aimma kaza abul qasim hudatul umma mu ne wa malik malik wa sairul aimma ak mboolem imam yi ci des kaza ni ki noonu abul qasim mooy al junayd radiallahu taala an al jamii ñoom ñooy gindi al umma xeet yi ñooy imaamu ñiy gindi xeet yi alxuraan nee na wa ja'alnaahum a'immatan yahduuna bi amrinaa lammaa sabaru wa kaanu bi aayaatinaa yuqinuun wa ja'alnaa minhum a'immatan yàlla def naa ci seen biir ay a'immatan ay imaam lammaa sabaru ba ñu mu ñëw wa kaanu te ñu nekkoon yuqinuuna di way wóolu bi aayaatinaa ci suñu aay yi xam-xam rahmatullahi alayhim bil sabri wal wal wal wal wal yaqiin yu fi diin ci muñ ak yaqin sabru mën a muñ am capacité muñ bu rëy ak yaqin am certitude ci yàlla wóolu yàlla dëgg ñaar yooyu noonu ba pare am ngëm yàlla gu wér koo xam ne da dalay leer ni li yàlla wax dëgg la dana am li alquran di wax li yeneen bi saa alayhi di wax mu leer na ni looluy dëgg te leneen loolu du dëgg lu dëppwul li yàlla bëgg du dëgg maanaam ñaar yooyu nag ñaar yooyu ci la ñuy amee imaama fi nekk imam bu mag ci diine ji waaw ci ñaar yooyu dañ ko amee comme ni mooy euh, euh, li Cheikh Hadji Malick wax radiyallahu anhu waa euh, wa ta'zimu amrullahi hamlu azal wara huma mawrida saati zulali raxibu màggal mbiru yàlla yi réyal ko kooku mooy ko am yaqin mooy mbiru yàlla yépp nga réyal ko lépp lu yàlla màggal nga màggal ko alquran nga màggal ko réyal ko ba nga xam ne mu ëpp doole lépp ci yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam sunnaam nga réyal ko ba mu ëpp doole lépp ci yow yi yàlla màggal boroom xam yi ñoo ci jiitu ginnaaw yenent yi alayhi salatu wasalam nitu yàlla yu sell yi ngay réyal ba ñoo ëpp doole lépp ci yow ah, yàlla màggal jumaa yi jàkkay kaaba ga et symbole yàlla diine ji rek lépp téere yi waaw comme la suñ sëñ ba defoon ndeysaan allahu akbar rahimahullah chett dafa gis doom ji téye téere boobu saxeex muslim la woon mu téye ko <laughs> teg ko ci ci kaw kii bi ne basan gi basan gi tegu ko sax tegu ko ci kii bi ci suuf si ah teg souble, ci suuf de ci bassin gi la ko teg ñu hmm? ko tege ya ci bassin gi hmm? mu ne ko mu ne ko ii yëkkati lii xam-xam bi motax yalla yàlla ñu ci kaw nit ñi xam-xam ya, bii moo ñu ya ci kaw nit ñi bo gisee nit ñu respecté ñu fonku ñu nit ñu fonkee ni ñu am ciir bi ñu am deug deug ñu am cër bii ni li ko indi mooy xam-xam bii ni kon dañ ko war a fonk dañ ko war a yëkkati nga gis bët yi commencé taa tellement maanaam kon sëriñ waaw ndax fonk gi mu fonk téere bi mooy waajoo yàqit bi dafa nekk ci xolam ko leer màggal waaw màggal na rëy xam na certitude bi quoi. voilà ko loolu. voilà. macha mu ne xam lu azal waraa nag. yanu ngardaajoo loru mbindee fi mbindee seen lor yi nga nga nangoo ko supporter yanu mu ne ñaar yooyu huma Maodo daal ñaari rootuwaay la yoo xam ne saafi zolaali raxiim ñay sell ña fa ñuy roote ci yàlla dañ koo xemem am ñaari jikko yooyu parce que ci la ñu imam. yi. waaw lépp loo xamante ne dafa fonk lépp loo xamante ne dafa dafa dafa symbole la daal buy représenter diine ji looloo tax ngay gis ku gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg pire ba mu jaxasoo ci xolam pire ba jaxasoo ci deretam bu gisee jullit bu duggee rek ci jàkka ji wala mu nekk ci mbedd mi mu séen waa ji jullit la xamu ko tey la première fois la ko mës a gis rek da koy bëgg parce que yëg na ni kii xolam dafa nangul yàlla loolu rek tax na mu bëgg ko sans mu xam ko sax waaw sans mu xam ko le fait rek mu xam ni kii jullit la mm-hmm. nangul na yàlla loolu rek day tax xolam fiix yu ubbeeku lan ngay xalaat su gisee koo xam ne dafa xam ne daf ko leer ne kii dafa bëgg diine dëgg nag fonk ko respecté ko et cetera ku fonk nitu yàlla yi ku fonk et cetera toppal loolu mm-hmm. deng nga wa fi jawhar kon wa mu fa waj kon fa wajibun taqlidu xabrum minhum kadha haka alqawm bi lafdhin yafhamu kon mu fa wajibun aji warla taqlidu tanku top ci xab xabrun ab fóore minhum hum ci ñoom kazalik non haka non la nettalee alqawm nit ñi bi laf xet yi maanaam borom xam-xam ya bi laf din ci kàddu yo xam ne yu famu def nako deg def nako comprendre mu wa fi sharh bo defé sharh ba ithaful murid moy sharh jawharatu tawhid bu imam Ibrahim al-Bajuri rahimahullah téereem bii nii dañu bëri bi bokk na ci téere yi nga xam ne ma xool nit mën nañu nit daal ñoo dox suñu diggante imam al-Bajuri bi ci isnaad macha waaw ñaar ñi ñaar ñaar ñi ñoo bokk génération ñoom ñu ngi dund mooy Cheikh Ahmed Darwish ak euh, euh, euh, imam Ali Jumaa ñoom ñaar ñu jële ci Cheikh al-Hafiz Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari mu jële ko ci Muhammad al-Kafrawi mhm. moom mu jële ko ci Cheikh Ibrahim al-Bajuri bi bind téere bi Ishaaqul Murid bokk na ci isnaad yi gën a gàtt yu ñu ànd ak génération bi ni mu ni mu sorewee ànd ak génération yi maanaam ni ñu sorewee parce que ñooñu ci ginnaaw xoolal Cheikh Ibrahim al bi <laughs> bi mu bindee téere bi Cheikh Omar radiyallahu gis nga ni mu jëlee ci moom téere bi les années mille cent yooyu la ànd ak loolu euh, maanaam ñett nit bëriwul vraiment isnaadu aali ci loolu mu ne kon ay maanaam moom mu ne wa Malik ibnu Anas sinon boo jaaree ci an nabaxaani moom moom boobu yoon boobu am na mais yoon boobu day am ñeenti nit ñeenti nit lañuy doon donc moo tax waaw ay maanaam li ci nam maanaam wa Malik kon mu ne Malik ibnu Anas radiyallahu anhu mu ne wasaayir ak ñi ay maanaam li mu ci na mooy baaqiyal ummat a'immati maanaam baaqi ñi des ci al a'immati njiit ñi almaaw dina ñu xam ne yaani ma ngi ci nam a'immata imaam al muslimina wa jullit ñi mm-hmm. ka keem abi abdullah mm-hmm. ka abi abdullah keem abu abdullah muhammad ibn idris ash-shafi'i radiya yàlla na gërëm allah bur yàlla taala ci kaw ci anu ci moom wa abi hanifa moom paa moom shafi'i al la امام الباجوري رحمه الله من ابو حنيفه ابو امام ابو حنيفه عن نعمان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ابو عبد الله احمد ابن حم احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله جرم الله تعالى بور يالا جكا عنهم تي نيوم اجمعين مبولم سن وا من وال اولى لي گنا يي موي جالو ني ديف الا ها مانام مانام ال ال al bi nga xamantene mo nek ci kanam alif lam bi mhm. lil kamal ngir matale manam mhm. ngir wane ne saa imam boleh ñi dess ñepp ci imam yi motax tax ne li bu ko mu dugg ci ñom ka sawri kem imam as sawri moy mhm. mooy nan nu mu Sufyan, sufyaan ibnu said ibnu masruq as sawri as sawri ibnu masruq ibnu sawr as sawri وابن عيينة ابن عيينة سفيان ابن سفيان ابن عيينة رحمة الله عليهما والأوزاعي الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه قصة ليسان قاي باخ لني الله أكبر سنتور رك بوكو ديجي دنجي يك نني نيو سيلا لك والله والله سن سن ها دنجي ديجي سنتور رك nga xam ne ñii ay nit ñu màgg lañ hmm. wallahi sans sax sans sax nga xam seen benn wax sans nga xam sax lan lañ doon jëfe hmm. mais le simple fait que nga dégg seen tur ah rek da ngay yëg ne ñii vraiment yàlla def na ci ñoom maanaam ngëneel ak vraiment yu kawe kawe kawe hmm. rahmatullah alayhim liggéey yu rafet a rafet rafet lañ def ci diine ji liggéey yu sell sell sell lañ def ñu ay non mais subhaanallah mhm. jël yenente bi sallallahu alayhi wasallam alquran wax waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngat ko jàng ko takk jël ko tas ko tasaare ko mhm. leeral ko lépp lu ci lënt amul xaraf virgule bu ci lënt lu dul tekki nañ ko firiñu ko génne ko teg ko def ko exactement nañ ko war a defa ba pare jox ko nit ñi ànd ak loolu noonu lañ seetlee woon ci seen jaamu yàlla ak seen doxalin noonu la ñu meloon bi nga xam ni da nga yéemu ci yàlla wallahi xool imam al awzaa'i bi radiyallahu anhu ñetti àdduna maanaam dundam ñetti xaaj la ko xaaju xaajuloon benn xaaj bi daf doon da da ko doon euh, jàngale jàng jàngale at bi yëpp noonu la doon def beneen xaaj bi beneen xaaj bi mu nekk dem ca armée ba dem ci zow yooyu arab yooyu di pour jihad ferfermé pour dem di jihad ji di dem di jihad ak gaay waaw quatre mois yeneen yi noonu lay def quatre mois njëkk yi wax naa la li def mooy jàng ak jàngale yeneen quatre mois yi nag nekk affaire acc yi toppatoo umra aj et cetera addunam noonu la ko xaajale woon ak di woor di kii et cetera waaw et cetera ñoom ñi ñëpp koo ci gis koo kuñ la ci wax histoire am da ngay defe ne kii du nit kuñ la ci wax histoire ba wax la du début à la fin wala nga gis ay waxam da ngay defe ne nit ñi dañuy exagérer ñii li ñuy ci warta a ne te pourtant du légende c'est vrai te du ñoom rek ñoo meloon noonu ci seen jamono am ñu bari ñu mel ni ñoom mu ne xusuusan rawatina particulièrement imaama imaamu ahlu sunnati imaamu ahlu sunnati wal mu ne xoolal ñii ñii ñu tudd ñoom ñëpp ay imaamu jullit ñi lañ mu ne nak kon kay particulièrement am na ñoo xam ne particulièrement dañoo nekk imaamu jullit ñi mu ne comme mooy mooy imaamu ahlu sunna wal moo nekkan abu abul hasan al ashari mooy abul hasan al ashari imaam al ashari radiyallahu anhu wa Abu mansur al-Maturidi mooy imam al Abu mansur al-Maturidi manam Ash'ari ki moy sen imam Maturidi ki ci dess moy sen imam. mom mom mom mom wa inshallah waaw après dinañ wax ci moom. voilà incha allah dese na kan Abu Mansour al-Maturidi. waaw moom moom Moyen-Orient la dëkkoon fële côté Indonésie foofu la dëkkoon moom tamit jamono Hanafi la woon Hanafi al-mazhab moo tax lu ci ëpp ay Maturidi lañ. bo xolé deux tiers u yépp ay maturidi la un tiers yak ñoy ashari xanafi ñi nga xamne dañoo bok ngir imam Abu Hanifa rahimahullah ci mazhab voilà ngiiru l'islam bi ñi topp diine l'islam ñi top diine l'islam hmm? jamono bi ñi dem ba ba muju dafa am quatre écoles yo xamne ne ñoo fi mujj ne ñoo xamante ne la nit ñi di top seen jangale ci walu fiqh les quatre grandes mhm. écoles de droit sont voilà légui mu am xanafiye parce que imam Abu Hanifa moy sen imam. Mhm. mu am maalikiye parce que imam Malik ibn Anas moy sen imam moy imam wa Medina. Mhm. mu am Shafi'i parce que imam Shafi'i moy sen imam moom Makka la aduna mais fa la màggee sax d'ailleurs bon en tout cas ba bi am 9 ans après ci lañ ko indi Madinatu Munawwara mu jàng sa ci imam Malik. rahimahullah hanafi Maliki Shafi'i ah, ak Hanbali. voilà après après mu ne xanaabila yi mooy xambal yi ñoom imam ahmad ibn xambal mooy seen imam mhm. waa ahlu sunna wal jamaa nag ci aqida ci pas-pas ñoom ñëpp benn lañu comme niñ ko gisee démb ñoom ñëpp ñoo yam benn lañ ci ni ci ni ñu gëmee yàlla wuute ci yi nga xamante ne wuute daganu ci yi ñu wuute yëpp doo fekk ne wuute dagan na ci mais yi wuute daganul amul benn buñ ci wuute mhm. léegi ñoom

dafa nekkon pendant 40 ans ci doctrine mu'tazila yi al jaba'i mom moko mayon doom sax nga xamne mo nekkon imam mu'tazila ci jamono benn bés mom dafa ñëw tuub bi mu tuubé dem ci ibn kulab ibn kulab bok na ci borom xam-xam yu mag yi jamono bok na ci imam hadith taw ci jamono ba nga xamne imam al-Bukhari sax rahimahullah dafa solo ci mom ay hadith ci sahiha donc wahaabi yi nag dañuy wax ne mu tullaab. saxiix ah, boobu lu muy mooy lu wér. <laughs> téere parce que daf ci dajale ay xadiis yu wér voilà léegi euh, imam kon euh, euh, kii ibnu kullab rahimahullah kon après bi mu nekkee ci moom moom la topp après nag mais par contre comme moom moo ko gënoon a xam affaire nit ñi maanaam elmul kalaam mooy raisonnement bi ak nit ñi dajjee teesu gaa yi moo tax moom moo gën a brillant ci affaire boobu téeram yi mu bind mu bind ak ibanat y yeneen i téere ah la bind mu leeral ci mazhab ahlu sunnati wal jamaa ne lii mooy parce que avant avant imam abul hasan al ashari radiyallahu anhu bi ñëw xamoon nañ waa ahlu sunna wal jamaa mais sifaatiya lañ leen daan tudde sifaatiya mooy ñi nga xam ne dañoo saxal melo yàlla yi comme ni ko alquran saxale comme ni ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam saxale sans ñu def ta'til maanaam bañ ko daax sans ñu def tashbih wala tamsil maanaam di la yàlla ko mbindeef yi wala ñu koy nuróole ko mbindeef yi sans ñu def tajsim maanaam ñuy wutal yàlla jëmm mais dañoo saxal yàlla melo yi comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran saxale comme noonu la ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxale léegi nag ci biir loolu dafa am ay interprétation maanaam li ñuy wax ta'wil ak tafwid ñaar yëpp mais yëpp moo yoonu as salaf yi la yoonu ash'ari la motax dañ leen do achaira parce que abul hasan al ashari bi radiyallahu anhu moy sen imam kérok bi mi toup dafa ñew yek ci kaw mimbar fek li ko lo en fait ñaari mbir la bu ñëk bi moy moy en réalité biko ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa gënt yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko topal mazhab ahlus sunna wal jamaa parce que mom abu musa al ashari sahaba yenent bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu moom mooy maamam te moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom la doon junj bimu doon wax naan ñi gën araqul xuloo bi mu ne mooy ahlu yaman ñi gën a nooy xol ñooy waaye yaman mu ne al imaanu yamaniya wal xikmatu yamaniya imaan ngëm yàlla dëgg yaman la fekk baax maanaam yaman lay lay lay génnee fa lay cosaanoowee niki noonu. Euh, euh, yaman waaw. dëkk boobu yaman mm-hmm. mu ne niki noonu euh, al al xikmatu sagesse mu ne yaman ya yaman la fekk baax cosaanam yaman la. donc yaman boobu noonu parce que ñoom mooy Abu Musa al Ashari fekk ñoom ñoo ñoo doon ñëw mu naan ñooñu ñu ngi ñëw. kii ñii ñëw nii ñooy ñi gën a sell xol ci nit ñi ñi gën a baax xol ci nit ñi ñooy ñi gën ci nit ñi ñi nga xam ne seen ngëm moo gën a du wér ci cosaan ba maanaam fi muy jóge niki noonu sagesse ci ñoom la fekk baax boobu ashari yi la doon di parce que mooy maamu Abul Hasan al-Ashari bi muy moo tax ci ginnaaw gi gars yi ñoom ñooy ah maanaam ñi topp doctrine Abul Hasan al-Ashari bi nga xam ne dafa reproduire comme ni ko kii wax Asharastani yi ci al milal wan nihal téeram boobu rahimahullahu taala rahmatan waasi'a mu ciy leeral ne mu ne mu ñëwee mu ne imam abul hasan al ashari radiyallahu anhu dafa topp exactement aqida bi maamam amoon mooy abu musa al ashari radiyallahu anhu xoola subhaanallah maamam abu musa al ashari radiyallahu anhu saxaaba yeneen bi saa sallam yeneen bi muy ñëw yeneen bi saa sallam ne ñoom seen ngëm yàlla foofu ci ñoom la fekk baax ak xam-xam bu sell la sagesse ñooy gën a nooy xol ci nit ñi bu fekkente ne kii te kooku moo nekkoon seen imam Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu bu fekkente ne sëtam boobu exactement li maamam doon véhiculer ci ngëm ak ci ci ci ci ci sagesse ak ci tawhid ci aqida loolu la doon véhiculer loolu mooy ñoom ñooy waa ahlu sunna waaw wala déet léegi ah, Abu Musa Abu Hasan Ash'ari radiyallahu anhu kon moom bi mu ñëwee ci kaw Mu'tazila taxaw Basra benn vendredi la yéeg ci kaw mbar bi daan hey ku ma xam-xam na ma ku ma xamul nag maa ngi leen di yëgal ni man maay abu abul hasan al ashari mm-hmm. dégg naa bis ni ki tey ci aqida mu'tazila yi maa ngi dem ci aqida ahlu sunnati wal jamaa après ci la bindee téere nag dajji théorie mu'tazila yi moo tax mu'tazila yi avant avant abul hasan al ashari nii di ñëw radiyallahu anhu dañoo ni seen maanaam dañoo fiixuun firiwoon amoon doole mm-hmm. waaw yoroon pouvoir sax day pouvoir bi comme wahhabi di tey rek hmm. comme ni wahhabi di mel tey ñoom tam noonu lañ meloon mais de toute façon seen fitna bi dana daanu léegi bon léegi ñoom tamit looloo leen daloon maanaam ñu firi ubbeeku maanaam féex mais bi mu ñëwee daj seen théorie yi saa yi gars gars yi commencé labaat waaw motax mom nak le fait que mom mo défendre akida lu sunna wal jamaa défendre ko bind ci ay téere yu bari ba ñi ñew ci ginnaw mom lañ top wala li ëpp ci wa ahlus sunna bi ñewé ci ginnaw mom lañ top lolo tax wa ahlus sunna ñu leen di wax ash'ari yi c'est pas parce que dañu créer doctrine bu bess dedet li motax ñu tuddé leen ash'ari yi mais ñet ñet école mo waaw légui koku moy ku jëk bi abul mus abul mansour al maturidi même époque bobu radhiyallahu anhu parce que ñoom ñëpp époque salaf yi lañ dund ñoom ñii. comme comme comme ñeenti école yi ñu amee woon rek. voilà ci jamono salaf yi lañ judd lañ juddoo ñoom tamit ñeenti école yi. ñii nag ci fiqh parce que xam-xam bu ne dafa am ñu ko gën a mën. loolu la tàmbalee bi chapitre boo seetloo mooy li Ibn Asakir doon wax rahimahullah ci jamono jooju eh, par la. ba pare eh, kii bu nekk dafa am lu ñu ko gën a mën domaine bu ne. am ño xamne hadith ño gëna mën ño ay imam lañ ci hadith ñom Bukhari ñom Muslim ñom imam Ahmad et cetera on est d'accord ñoom imam Malik imam Shafi ñom Sufyan ath-Thawri ñom Shu'ba ibn hajjaj ñom imam az-Zuhri avant ñom et cetera rahmatullah alayhim ñooñu xadis ñoo gën a man moo tax ci lañ ragné am ño xamne ño gëna mën ci fiqh en général nak imam yu mak yi ci fiqh day fekk day ay imam lañ ci hadith ñi gëna mëna fekk moy ñom imam ahmad ñom imam abu hanifa imam malik ñom shafi imam ahmad ibn hanbal imam as-sawri ibn uyayna ñom awzaay moy gaay ñi ni ni ñu mané won fekk non lañ mané won hadith d'ailleurs ñi gëna mëna fekk bo leen xamé moy ñi gëna mëna hadith rek ah bu fekkante ne geejju nañ la wax waxuma la man kii dafa am côté comme yahya ibn ma'in rahimahullah yahya ibn ma'in moo gënoon a man xadis ñoom Ahmad ibn Hanbal su raw rawatina rijaal yi nit ñeeg ñooñu mais mënul woon fiq mënul woon fiq bu baax am ñoo xam ne ci aqida lañ aayoon mooy ñoom imam Ash'ari imam Abul Hasan al-Maturidi bi et cetera mu am ñoo xamante ne ci euh, tasawuf lañu aayoon mooy lan mooy dañ lañ ko doon tuddee jamono yooyu as-suluk wala al az-zuhd wala at-tasawuf as-suluk mooy sóobu wala ak zuhd dëddu àdduna almul zuhd wala boog ah euh, euh, dañ koy wax tamit tasawuf dañ koy wax tamit tasawuf léegi ñooñu ñi ci gënoon a mën mooy ñoom imam al Junayd bi ñoom Junayd radiyallahu anhu ak ñoom almu euh, euh, euh, almuhaasib itam mënoon na ko lool mhm. et cetera voilà léegi kon ñoom ñi ñoo nekkoon imaam yi ci mbir mu ne mhm. donc il faut ñu comprendre loolu Abdullah ibn Mubarak par exemple al-Marwazi imaam la ci fiqh ci xadis ak ci tasawuf mais ñii ñoom boo waxee boo tuddee seen tur mooy ñett ñi ñoom on va dire lañu woon ci tawhid ci tawhid ci tawhid waaw Abu Mansour al-Maturidi radiyallahu anhu moom ci Moyen-Orient même époque bi Abu Hasan al-Ash'ari radiyallahu anhu doon def liggéey liggéey bu rëy bi ci ay Iraq Égypte maanaam mooy ay voilà Iraq et côté yooyu noonu moom mi ngi ko doon liggéey côté bële ci Moyen-Orient di dammat moom tam Mu'tazila yi et cetera moo tax Hanafi yi mooy seen imam ci aqida ñett lañ ah ñett lañ wala ñaar ñan imam yu ràññeeku ci tawhid non mom la lay wax ni ma ngi ci ñew inshallah allah imam abul Hasan al ashari radiyallahu anhu mo ci gëna rañé motax li ëpp motax tax maalik yi ñoom ñëpp shaafi yi ñëpp ak un tiers xanaf yi ak mbolo bu bari ci xambal yi ay ashari lañ mu euh maturidi moy deux tiers xanaf yi rahmatullah alayhi mm-hmm. léegi ñoom ay yi lañ mm-hmm. léegi xambal yi ay asari lañ mais sauf que ñoom bu nekkee yi tamit ñu ci ëpp ci ñoom tamit dañuy nekk asari mais ba tey dañuy yoraale doxalinu ashari yi mm-hmm. mais yëpp même sunna bi la yi mooy koo xamante ne asar comme imam ahmad mooy seen sëriñ imam ahmad ibnu hambal parce que dañ ko xamé won ci top asar yi mom tamit jeexital yi nek hadith yi comme niñ la waxon ci ci jotay yi wessu ci bir Cheikh Omar radhiyallahu anhu ko don wax mhm. diko netal wax imam Sha'rani radhiyallahu anhu mune imam ah, ah, ah, Ahmad ibn Hanbal mom rahmalahu ni won na mom mom xamé won nañ ko ci top lan ci baña sax askana la bopam ben wax di wax rek lu rot ci sunna moy asar asar moy jeexital trace héritage comprendre mhm. léegi sunna bobu mu don top tout le temps motax par exemple ñom duñ def ta'wil mom daanul def ta'wil mhm. wala bok daanul bari parce que amna na hadith yo yoo def na ci ta'wil mhm. mais bon pour pour gàttal daal mom daanul di def ta'wil ñom seen école la parce que lii tamit loolu tam beneen affaire la bu ñuy tàmbalee jawhar tawhid inshallah dinañu yaatalaat bu baax yii nii ak domaine yi nga xamante ne moom moo ci am ak kii voilà pour bañ ko kii daal mais ci gàttal daal lii moom mooy ñeenti école yi am mm-hmm. ñetti école yi am ci aqida mm-hmm. mm-hmm. mun a ay maanaam ba tey ñu ci nam misla man kemoog ñi nga xam ne zukira tuddeef na leen fil hidayati ci njub wal istiqamati tariqi ak coowooral yoon am nañu maanaam mooy lan mooy bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi imaamu jullit ñi mu ñi nga xamante ne mooy comme abul qasim ibnu muhammad al junayd moom al junayd radiyallahu anhu moo tax tariqa yoonu junayd waa ahlu sunna maanaam tasawuf daf cee am ay yoon yu bari suufi ay yoon lañ ñi ñuy xas ci téere borom xam-xam yi ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne suuf yi la ñuy nekk mais ay caaxaankat lañ mais bu imam al-Junayd radiyallahu anhu ñoom dañuy topp sunna imam al moom day topp sunna bu baax moo tax waa tasawuf yëpp mooy seen imam mm-hmm. ñu topp sunna mm-hmm. moo tax ñu koy tuddee ñu wax bu imam al-Junayd comme ba pare moom ci salaf yi la dundoon jamono jooju te dafa ngéeju woon noonu la ngéeju woon ci sharia ba pare noonu la ngéeju woon ci xaqiqa moo tax moo tax yoonam ni borom xam-xam yi topp ko parce que moom li muy def day leer boo ko xoolee ci biti amoo loo koy ŋàññee ndax sharia noonu la xol bi feese dell ak leer ci xaqiqa waaw loolu moo tax borom xam-xam yi ñëw si ginnaaw yëpp. ay suufi la yu topp moom ay vision am ni muy doxale radiyallahu anhu wardahu mu ne kon fa yoo taqadu def na fas an na li wér mooy Maalik ak imam Maalik wa man zakarahu ak ñi nga xam moom la tudd maahu ànd ak moom hudaatu ñoom bi nga xam ne xiyé moom xeet yow xayrul umam mooy gën ci xeet dégg nga mm-hmm. kon ñoom xiyaari xaa ñoom ñoo ci gën baadama ginnaaw bi nga xam ne zukara tudd na ñu ginnaaw bi nga xam ne ah, man ñi nga xam ne zukira na leen mina saxaabati ci saxaaba yi wa man maam ak ñu ànd ak ñoom fekk parce que imam al-Laqaani imam al-Laqaani avant ñi dafa tuddoon saxaaba yeneen bi bokk sallallahu alayhi wa sallam ne Abu Bakar Omar après mu ne asharul ahlul jannati après waa Badar et cetera ñi bay bayatu ridwaan yooyu ñoom mu ne ñooñu ñoom ñoom dañoo war a gëm seenu gëneel ci kaw ñeneen ñu dul ñoom après nag mu ne bokk na ci li ñu war a gëm tamit mooy Maalik ñeneen et cetera tu vois mhm. ak di wax lu ci tegu ñoom ñooy ñi imaamu xeet bi voilà mhm. kon nag fa waajibun aji war la indal jumhuri fa li ëpp ci borom xam-xam ya ala kulli man képp koo xam kaw képp koo xam ne mhm. lam yakun nekkul fii ci moom ahliyatul ijtihaadi maanaam yelloo maanaam euh, le fait que mu man am doole ijtihaad al mutlaq ba ñu joyal taqlida mu topp ay maanaam li mu ci namm mooy al axd mu jàpp bi mazhabin ci benn mazhab xebrun ci fóora minhum bu tokk bu tukkee bu bokk ci ñoom fil ahkaami ci atte yi nga xam ne al far'iyati ya ñu caral lañ boo xam ne yaxruju dana génne min ahdati taklifi ci euh, kóllëre ak maanaam euh, taklif mooy le fait que nit ki nekk mukallaf mooy togg gi ñu ko togg def bi taqlid yi ci topp gu muy topp taqlid bi muy taqlid ayuhum ku ko soob ayuhum képp ku ne saa ak ku ko soob ci ñoom waxatte dëgg-dëgg inaqada maanaam mooy lan mooy bi ñu xamee loolu kon dafay war ci nit ku muus ñu nit ku ku yeewu ku ne jullit bu ne bu fekkente ne moom le fait mu mën a créer mazhabam manu ko il est obligé rentrer ci benn mazhab xam nga lu tax parce que mazhab yi dañoo teg ay règles yu ñuy mën a xàmmee loolu c'est important toog ne man aw ma mazhab bokkuma ci benn ngir yi loolu munta ne su fekkente ne yow doo mo doo mujtahidul mutlaq mooy koo xam ne yegg na niveau boo xam ne moom boo ko joxoon kaamilu alxuraan kese ak xadiis yi kese mu génnal la mboolem attey l'islam yi sans sukkandiku ci waxu kenn <laughs> xam nga loolu jafe na donc ce qui veut il faut mu mën parce que yooyu li mu laaj moo bari te yooyu dinañ ci ñëw après incha allah euh, wala boog am na tuddoon nañ leen avant euh, avant mais bon bu peut-être dinañ ci ñëwaat mais euh, am na fu mu koy tudde moom mii bu ñu yegsee foofu dinañ ko gën a kii donc yooyu il faut mu am ay conditions yu mu matal pour man loolu te yooyu gisatuñ ko ginnaaw bi seen époque boobu jeexee imam at-Tahawi rahimahullah imam at-Tabari ci boppam bi ñu doon tudd imam at-Tabari mooy ki ci mujj imam at-Tahawi wax nañ ne mën na ko yegg na fa ànd ak loolu yëpp dafa dem nekk xanafiyul mazhab at-Tabari moo ci mujj les années trois cent ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi ñi ci des ñëpp dañuy nekk dañuy topp mazhab ils sont obligés parce que mënuñu teg usuulu seen usuuli bopp méthodologie bopp règle bopp à partir de yooyu mënoo ko donc tu es nga sukkandiku ci méthodologie yi ba ñu njëkk ñu tegoon mhm. te beneen affaire la mooy méthodologie yooyu il faut kon mu am imam bu la gën a doy ci méthodologie ni mu ko tërale te mënoo génn ñeenti ngir yi tamit mhm. li tax mënoo génn ñeenti ngir yi suñu jamono yi mooy jamono yi mujj yi parce que ñoom kese la seen xam-xam leer maanaam ñu takk ko téye ko ñu xam seen mbir yi yëpp d'une manière très claire ak seen usul seen furuwaay maanaam branche yëpp ba mu leer donc ñooñu nga mën a topp. li tax nag ñun sénégalais en tout cas ba ci jamono yu mujj yi munuñu nekk leneen lu dul Maliki mooy téere Maliki yi ñoo yegg si woon ci ñun. donc ñoom lañ mën a xam seen seen mazhab bi kon ci loolu la ñuy topp mais sinon on n'est pas obligé d'être Maliki. <laughs> mais daal kenn ci ñeenti ñi moom foog nga doon mm-hmm. leer na mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw dégg nga loolu tax tey ba pare njiir bu ne day am yu muy ràññee ko munoo munoo munoo euh, euh, en fait bu dee problème usul mooy problème bi moom tu es obligé nga topp sa ngir question masala fiq bi bu dee problème usul la maanaam tu es nga topp loolu parce que ñoom règle boobu nga ni ñoom ngay topp parce que mënoo leen topp tey suba nga yàq nga yàq topp bi ci leneen maanaam man nga nag loolu contradictoire ak li ñu doon wax boobu ba léegi bu fekkee fekkente ne masala bi xad maanaam ni ñu déggee xadis bi la moom moo tax voilà booba da ngay topp li xadis bi wax c'est vrai que ku la neex nag mën nga ko topp mais moytandikul nga topp topp win woo xamante ne da ngay topp li gën a woyof rek de telle sorte que après da ngay yàq sa jaamu yàlla ci jëmmi boppam comme li ñu joxe war exemple ci mhm. am na ne masalan pour pour gaaw ñu ne ñu ne par exemple lekk yàpp giléem du toj jàpp ñeneen ñu ne kenn day toj jàpp ki ne kii ne laal jigéen du toj jàpp ki ci des ne déedéet day toj jàpp ki ci des ne la euh, euh, euh, masalan wàccu day toj jàpp ki ci des ne la déedéet du toj jàpp Eh? Eh, eh, et cetera toppal lool yow nga ñëw def yëpp ba pare daan mi sama njàpp tujul ñu ne la nga ni parce que luñ la wax rek nga ni parce que kii nee na moom du nja sama njàpp tujul boo boolee dañ naan la ki la wax ne la laal jigéen du too njàpp bokkul ak ki la wax ne la lekk lekk yàpp giléem du too njàpp bokkul ne la wàcc du too njàpp bokkul ki la wax ne nelaw du tooñ ki len ki nelaw du to jàpp ki ci def ne reto tooñ ki et cetera parce que condition bu nek bu ñoko waxe dafa am ay cas dafa am ay condition yu tax ñu wax la wax wa no yenn yi day am condition yenn yi du ko am mhm. mais problème bi moy bo ne manam koku liñ koy wax sax moy dañ nan ko sa njàpp toj na selon ñepp amul kenn ku ne sa njàpp tojul parce que yi nga boolee def yépp il faut que mu am ci ñi nga tek borom xam-xam yi nga tek yépp il faut mu am ku ne la ci ci manam ku ne ko kenn ku ci ne ci ñoom dina am boo xam ne bu ko xoolee rek dana away ah saa dama japp ci sa japp toj na donc maanaam pour wax la ne la motax top ngir bobu lolu manam fofu la nekké point bu essentiel. en voilà sauf que nak tu n'es pas obligé nga di leen top ci lu nekk comme niñ ko leerale rek loolu mom yaakaar c'est vrai vraiment bien clair depuis depuis biñ tambalé ba <laughs> chapitre bi ba légui voilà en tout cas il faut ngay xol dalil yi et cetera loolu motax di xol dalil yeeg yooyu am na solo mais ku mënul loolu mom li ñi wax pour ñooñu la ñi xol dalil yi mais ku mënul loolu moom <laughs> saa li gën li gën a yomb ci yow moy nga top hein ah? mhm. nga top sa mazhab kessé té bañ di critiquer ku top leneen ndax ñoom ñëpp lu nekk baax na yaakaar naa leer na aussi dégg nga mu ne waxatte dëgg-dëgg in xaqada fasu na al ijmaa dëppoog boroom xam-xam yi ijmaa ala an na ci ne kat li wér bu mooy man képp koo xam ne xalla da dafa topp dafa tënk fil furu'i ci masala ci ci ci furu'i mooy branche yi wa masail al ijtihad ak masala yi nga xam ne ijtihad rek lañ moom laa lay wax ni waaxidan kenn min haulaay ci ñi al aimati yi ñuy njiit mbaa nag ginnaaw déglul bu baax ginnaaw taxaququ bi mu bi nga lóoralee leeraloo ah dabtu takk bu baax maanaam règle yi nga xam ne moom lay doxe mazhabahu mazhabam bi tawafuri ci matal shurut ak shurutu charte yi wanti faay ak dàqu al mawaani tere nga war leen a mën a topp mooy mooy liñ doon leeral sànq il faut nga man loolu mu leer na ne mazhab bi lii la nga mën a takk règle yi et cetera mazhab boo ko topp da xam règle yi muy doxee ah oui sino <laughs> sinon da ngay eh, am na yu bari doo ko doo ci nga ci da donc kenn koo topp ci ñi ci xawaayit yi loolu moo tax bu xadis ñëwee wala ab aaya alquran nga mën ni par exemple aaya bi wuutewul ak usulu mazhab bi xadis bi wuutewul ak usulu mazhab bi donc comme wuute nag maanaam mën naa ko appliquer ci sama mazhab appliquer ko te du génn kenn du ne ma li nga def bokkul ak ni nga waroon a doxal su ma neexee ma def li boo doonte loolu wuute naag li gën a siiw ci mazhab bi te am na benn mbir mu mat a leeral mooy bu ñu waxee ni lii mooy mashhur li gën a siiw ci mazhab bi bokkul ak luñ ne ar-raajih moo gën a noot ci mazhab bokkut ak ñu ne asaxu moo gën a wér. waaw yooyu yëpp duñu benn. mar masalan mazhab maliki buñ ne rahmatullahi alayhi buñ ne lii moo gën a wér lii moo gën a siiw mooy loolu moo ne ci mu dawana donc borom xam yu mujj yi ñoom bugguñu génn ci mu dawana li mu wax li mu gën a dëgëral moo tax ñu muy gën a siiw léeg-léeg ñu ne la ar arjaxu lii moo gën a noot wala ñu ne ñu la lii mooy ar raajaxu li li gën a noot parce que moo gën a dëgër ay dalil wala asaxu moo gën a wér wala saxeex lii moo wér na et cetera donc yu yëpp il faut que sax déjà nga xàmmee ko parfois mbir mën na gën a siiw ba pare gënut a wér li gën a wér mooy li gën a dëppoo ak dalil donte lee gën a siiw yooyu yëpp ay aw ay ay sew sew la yu nekk ci affaire yi loolu moo tax affaire danga koy jàng il faut yooyu yëpp ci ci ci alxuraan lan xeetu dalil preuve ci waaw dalil lay nekk wala xadis yonent bi sallallahu alayhi léegi nag wuute nañ par exemple wala ijma wala boog mu nekk qiyaas bu tegu ci alxuraan wala xadis moy analogie bob wala bok mu nek waxu sahaba yi radiyallahu anhum selon tamit degré yoy yooyu ay ay affaire la yu wute ndax ndax waxu sahaba xujja la lay wala du lay yoy borom mom dañ ci wute rahmatullah alayhim et cetera kullu dabe nek par exemple amul ahlul madina ndax jëfi wa madina layla wala du lay jamono yooyu jamono salaf yi moo tax wax ndax yooyu layla wala du lay yu ay wute la ñu borom xam-xam wuti rahmatullahi alayhim ci ci affaire yooyu donc maanaam mooy usul yi moo tax usul yi foog nga xam ko mais ñeent yi nga xam ne ñoom dëppoo nañ ci ñoom ñëpp ci na lay la mooy alquran hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ijma ak qiyaas moom ñeenti ngir yëpp dëppoo nañ ci na lay lañ mm-hmm. léegi benn bu ci nekk nag dafa am ay affaire yu baree bari yu nekk ci ronam motax faqih deug ki ko meuna don moy usuli, usul yi foog mu nek usul yi usul fiqh manam foog mu man usul fiqh ba pare xam alquran yi hadith manam ay nan lañ ciy tegtalooyo ba pare xam hadith yi xam ci lu bari lu ko meuna doy mën cee xam mën ki lu defe nek ahadithul ahkam yi tax téere melni muntakal akhbar bulughul maram umdatul ahkam yoy téere am solo parce que day tax nga mëna xam hadith yi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi seen mom lañuy ñuy pour indi àttee diini lo tax téere am solo mhm. et cetera deng, mhm. kon nak ko def loolu yep mu ne bariwul ko dañ la min adat taklifi ci ah, kóll rek manam ak taklif ak ah, euh, togg jëf gi ñu ko togg jëf fii maa ci li nga xam ne xallada wommatu na ci waaw woo wommatu mooy taqlid maa ngi doon seet baat bi boobu ba léegi suivisme wommatu la fii ci moom waaw mun a intaa fa la jeexee mu la xasal maanaam li mu segg daal ci waxam li ci cheikh Omar radiyallahu anhu segg léegi mu ne kon nag fal naa odd nañu dellu ilaa kalaami ci kàddu ak cheikhu mm-hmm. Abdul Wahab Ash-Sharani radiyallahu anhu fa ñu ne qaala dafa wax ne maanaam Ash-Sharani radiyallahu xam nga fële la waxoon ca gannaaw mhm. bi mu naan euh, avant Cheikh Omar radiyallahu anhu wax fii qultu mhm. avant mu naan qultu ok <laughs> gis nga ko mhm. xam nga euh, euh, dani woon dani woon amul teqantal ci diggante imaamu jullit ñi comme ni nga xam ne lu ñu teqantal diggante yeneen yi tamit alayhim salaatu wassalaam maanaam te loolu dafa bokk ci ngëm yàlla. vraiment loolu Moustapha nekk na loo xam ne nii. à travers le chapitre da koy sentir quoi. waaw parce que vraiment muy bëgg. vraiment nit ñi di bañ a tàqale imaam yi. waaw kay di bañ a ku nekk nekk sa boor ne man maa la gën wala man maa la. vraiment bo xolé wax yu mu indi yépp <laughs> ça va dans voilà ça va dans ce sens ok. pratiquement loolu moy chapitre loolu mo nekk chapitre. waaw ok loolu la méthodologie xam-xam nan ngay jàngi xam-xam. ak man ngay def ba mazhab yépp nga yemale len ok nga bañ jël kenn diko note noot. ki kii moo gën kii wala ah, ki mo gën kii déedéet. ay paranon paroles mu mel ay lambi golo. waaw. day ku jug rek ñu daanel ko yooyu déedéet. loolu wax yu mu indi yépp borom wax yu mu indi yépp c'est dans ce sens là. wax yu mu indi ci ci sens boobu lay dem. Mm-hmm. boo ko xoolee. waaw. pratiquement voilà loolu nag voilà exactement loolu imam Sha'rani waxoon radiyallahu moom nag dafa defoon parenthèse indi ay waxu borom xam-xam yu dëgëral li mu waxoon mu ne nag nañ dellu ci wax Sha'rani radiyallahu anhu mu wa hadha al amru gis nga mbir moomu imam Sha'rani qaala qaala nee radiyallahu wa hadha al amru gis nga mbir moomu yaani mi ngi ci nam i'tiqaadu fas ci sa xol annati li wér boor moo wóor mooy saaira mboolem maanaam ñu des maanaam mboolem a'immatul muslimina imaamu way gëm ni fii nag la ci saaira di tekki fële fii fi ñu sànq fi ñu génn saayira li ci des lay teg fii mboolem mu ne ñoom ñëpp ala hudan ñi ngi ci njub min rabbihim bu tukkee ci seen borom wa annati li wér ba woru mooy ah mu ne far firaqu firaqu xaaju mooy pàccuk jamii am mboolem mazahibihim seen mazhab yi tarji'u day dellu ila firqatin ci xaaj pàcc waaxidatin bay aji benn dong waxiyate mooy naa jee naajiyati bay aji mucc te moy alati bi nga xamne alama kana mo nekkon ci kaw li nga xamne nekkon na ci alama mo nekkon ci kaw li nga xamne kana nekkon na ci alayhi ci mom annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi ak sahaba mi radiyallahu anhum mune gis nga loolu le fait que nit ki wara fas ci xolam ne mboolem imam yi mazhab yeeg ñoom ñëpp lu ñuy bari bari bëri ñoom ñëpp ño bokk benn group la ñoom ñëpp ci waa ahlu sunna lañ bokk ba pare ñoom ñëpp ci njub la ñu ne koo ci topp da nga jub loo ci def loo waxu koo ci bàyyi xel rek wax jooju wax ju baax la de telle sorte que waruloo critique yi sax ku wuuteeg li gis-gisu sa gis-gis su fekkente ne dafa topp waxu kenn ci imaam yi mm-hmm. mu ne gis nga loolu fas ko ci sa xol mu ne min bokk na ci asaril umur yi gën jaajafee mbir ala man ci képp koo xamante ne taqayyada dafa tënku bi mazhabin ci mazhab mu ay ayyanan bu ñu bu ràññee koo xam ne moom daa tënku ci benn mazhab kese kese kese ni man mazhab bii rek rek rek rek laay topp ay waxam loolu lu jafe la ci ñu mel noonu. comment kem ni nga xam ne huwa mooy mushahidul la ñuy gis tout le temps comme niñ koy gisee rek comme la ma waaj a yow lii ngay def man musuma gis ku koy def. ma ne ko lan la mu ne ma di ñu wax la benn wax nga ne même mazhab bi lii moom Shafi'i bi lii la wax ba pare dalil bi lii la nga ne kon man dalil bi ba pare dalil boobu dëgër na moo gën a dëgër mazhab suñu mazhab bi ci wàllu googu kon man loolu laay topp man ko loolu mos mu gis ku koy def. waaw dinaa laaj ba xam euh, loolu mën naa ne parce que man mos ma ko gis ah man <laughs> waaw baax na. <laughs> mu ne non non war a topp li waa mazhab bi wax ma ne ko amee mazhab bi ñoom ci seen bopp dañu wute ci masala bi waa mazhab bi ci seen bopp Maliki ñoom ci seen biir dañoo wute ci masala bi waa léegi xanaa bu ma toppee li nga xamante ne boog ñenn ci ngir bi topp nañ ko xanaa kon baax na ñooñu nag ñoo Shaafi yi ñoo bokk li ñuy wax ci mazhab ci masala bi man masala la fàtte naa ko loolu c'était en 2005 fàtte naa kan laata naa mais dal mom moom méthodologie bi ci jëmm boppam la d'accord loon. le fait que tout en étant maliki. voilà nga dem ben benn dalilu chafiri. voilà ah, voilà parce que hadith bi li la wax. wala quoi pour pour pour justifier sa ben acte. voilà ba paré loolu ci bopum mazhab maliki mën nañ ci ñom seen biir bo déggee ñu ne la lii la maliki yi wax tekkiwul né maliki yi yëpp ci d'accord. effectivement c'est ça en fait. li mo gëna note ci. ci seen mazhab. voilà moo gën a siiw moo gën ci seen mazhab. li gën a noot ah. mu mu gën a dëgër. dëgër waaw kay bokkut mu gën dëgër. léegi mu ah Abraham mu maanaam genre googu noonu da gis dañu am problème moo tax loo ci gis dañuy ñëw ci benn jumaa waa ji xutba wax français ñu jóg dem. parce que mënuñu d'accord waaye. <laughs> waaw ñu noonu dégg dégg naa leen ñoom ak bon seen sëriñ léegi ñu maanaam moo ñi ñi topp daal laa bëgg a wax ñu naan woy kuy kuy xabdu da da dog nga ci tarixa bi maanaam kuy julli def bi maanaam ko amoo xoolaat ngeen bu wax li ngeen wax parce que lan moo tax ñu ne parce que cheikh daanu ko def la day mel ni yaa gën a xam cheikh ko déedéet est-ce que condition la ci tarixa bi wala du condition déjà nga nekk maliki est-ce que condition la du condition ah. pour nga nekk tarixa bi nekk maliki du condition ah. kon ci kaw loolu nit ki bu nekkee shafi wala xanafi wala xambali rek day xam ñoom ñëpp loolu la ñuy def <laughs> ca biir maliki am na ñoo xam ne dañuy xam comme al-Hafiz Ibn comme al-Qadi bo xolé marocain yi lu ci beuri ci ñom di xabdu lolo tax qadi Iyaad rahimahullah ponkal ci mazhab bi ay waxam bi lu lu ñuy bàyyi xel mom day xam. xabdu moy la. moy nii comme ni ngay def. xabdu mooy wàcce sa loxo xabdu mooy nii xabdu mooy voilà voilà ok léegi et en plus. li gën a garaaw mooy dégg ci ci ne ñu ne mu ne mu ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ak Cheikh <laughs> mu ne euh, euh, li ñu def am teguñu ko fenn du benn yoon du dëgg. moo xam ñoom dañuy xab ñoom ñoom dañuy xam. waaw c'est Cheikh Ibrahima Niass ak Serigne Hadi Touré. mu ne dañuy mu ne loolu du yoon. ñu wax ko ci sëñ Hadi mu ne waaw li mu def tegu bu dee xam du tamit tegu ko bu dara tegu ko fenn. nanga mais subhanallah ba pare li gëna a moy day wax ne mom alaaji abdu la xala xanaa alaaji xana gisul li wax ci sëñ Haadi mais sëñ moy sirignum sëriñam moo moko def ni mom motax mu mel ni mu mel sëriñ Haadi la radi Allah d'ailleurs sax ci la mi bu ko tamal lolé wax ma ngi len di wax ga li ma leen def mais na ngeen nak di len tambalati na ngeen ñaanal sama sirignum mooy seen Xaadi Touré parce que su du woon moom ni ma mel ne du ma ko mel boo leen xamul seen Xaadi boobu mooy kan mooy moom <laughs> nit ku sell la koo xamante ne Saxiixul Buxaari da ko mokkaloon ci xolam fa xam nga laaj naa ko ko kay <laughs> waaw yaa ngi yaa ngi mu ne ma man ko yow ja kon mu ne ma moom da ko ni seen mu man ko seen Xaadi mais moom dama mokkaloon Saxiixul Buxaari waaw ay maqaamaatul Xariiri ay muxtasar xalil yu yëpp da leen wax ko lool. parce que da ñëw ne ko fooyam mu ne la fooyam nga wax ko rek mu kii mu daal di continuer <laughs> si. radiyallahu anhu sëriñ Hadi sëriñ Hadi eh sëriñ Hadi lii fii léegi yow imaginer nga <laughs> yow nga ni nga li ngeen tegu ko fenn li mu def lu yoon lu dëgg nanga yow même bu dul woon dara dara sax xanaa imam Shafi'i moom xanaa da nga rus li mu def dooni bidaa du sunna wala imam Abu Hanifa wala ñooñu au moins rusuloo saa ñooñu subhaanallah ah moo tax mu ne nag imam dégg nga li mu imam Sharaani wax fii radiyallahu yamale mazhab yi yamale leen ñoom ñëpp te xoolal subhaanallah ma li gën a yéeme mooy ku bokk silsila Omar yi maanaam mooy yor càllale bu jaar ci Cheikh Omar al Fouti radiyallahu anhu ci tariqa bi muy critiquer ci lu mel noonu koo xamante ne moom yorul sax silsila Omar yi xanaa ci silsila Omar yi ki ko yor moom moo moom appliquer lii nii da ko war a gën a yomb ndax sëriñam moo ko bind. radiyallahu anhu au moins maanaam boo yamalewul borom xam-xam yi tamit sa sëriñ bokk li mu bind nga nga fonk ko mm. bu dee yamalewoo leen laa wax te loolu moo normalul mais boo leen yamalewul sax bokk sa sëriñ li mu bind nga fonk ko bu fekkente ne moom respecté wuloo ay bindam bindu kan ngay respecté parce que Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu na daa bind benn téere ci xab yooyu noonu di di di wax ne bu kenn critiqué ñu koy def di wane ni am nañ fu ñu teg ñoom ni ñuy def au moins <laughs> bu dee moom moom moom maalikil mazhab la maalikiyul mazhab la sëriñam Cheikh Tidiane bi mu gëm maalikiyul mazhab la ànd ak loolu moom dafa gis ne xabdu moo gën a noot ci moom mu def ko mu def tranquillement comme li sëñ Haadi def gis ne xabdu moo gën a noot ci moom mu def ko tranquillement parce que moom pour moom xadiis yi moog loolu la gën a dëgëral te loolu lay topp ndax gisul dalil bu gën a maanaam même bu dee sadlu gis na dalilam sax mais dalilu du moo gën a dëgër ci moom mu topp loolu mais ana lan la ñuy critiquer ku def loolu ban bàkkaar la kooku def bañ koy critiquer après yow saa yoo wax nga ni wéy masala bi da cee xalangu da cee daanu da cee nangam di wax wax yu ñàkk teggin ci ci ci ñu mel ni ñoom. subhanallah yoon nañu yàlla sàmm. te te te waa waa ji nga koy wax ah, dafa dafa këru Sahih al-Bukhari toog. yow un tiers du kër woo ko boo jógee di wax loolu. c' est ça c' est ça c' est plus dangereux mooy waa ji def kër affaire bi toog yow kër woo ko yow li kër wul yow yaay wax moom. su ñooy sànni nekk. waa primaire ñooy tooñ ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy sànni xeer di tooñ a jàngal waa enseignement supérieur. voilà c' est dangereux. Hmm. yal dafa fekk ne dafa jafe ci ñooñu ñu ñu ñu ñu mën a. ñi nga xam ne dañuy faral di di topp rek benn mazhab nii sans surtout problème bi mooy saa ngay xool dalil yi même bu dee da xool dalil yi mais nga tënku rek ci loolu kese loolu pour nga yamalee loolu nga fas ci sa xol ne yeneen imam yi ak sa imam ñoo yam ni nga mën a toppee kii moom nga mënoon a toppee kii loolu dafa jafe day jafe ci ci kooku mu ne waru bamaa léeg-léeg sax law bu fekkonte ne xob xobi tëj nañu ahadun kenn mi al kenn al muqalladina ci ñi way woo matu li mazhab bi ñeel benn mazhab wa duriba ñu di ko dóor laa yaxruju du génn an zalikal mazhab wala boobu le mazhab ila gayri yi jëm ci beneen xatta mbete ka annahuma mel ne ñoom ñaari mazhab yooyu min la tey ne ñaari yoon la muxtalafay ne yu wuute ñaari diine yu wuute lañ wa kullu hada maanaam loolu mooy nag léeg-léeg gis ku nekk ci mazhab mu ne ñi nekk ci ay mazhab comme tey ku nekk ci mazhab maliki ñu jël exemple boobu tout le temps pour bañ di tooñ ñeneen ñi mu ne leen léeg nga gis ci koo xamante ne tellement day nekk day bëgg nekk ci mazhab maliki de telle sorte ga mu ne gis nga buñ ko jëloon tëj ko ci benn kaso ne ko lii du maanaam jëfeel lee nga xam ne tey moom la xanaf yi wax demal nga jëfe appliquer loolu mu ne loolu sax buñ koo defoon du waa ji day bañ mel ni comme si bu toppee li imam Abu Hanifa wax laa daal day def bàkkaar mel ni sax dafa mel ni dañ ni ko nekkal chrétien wala nekkal juif tey xoolal ki nga xamante ne tey moom du dem julli ji juma parce que tout simplement bu ñuy xutba duñu wax duñu wax dañuy waxaale français kooku xam nga ni jappul ne ñene même bu koy wax ci làmmiñam suba ngoon bu tek jappul ci xolam ne yenen imam yi ci liñu ne parce que bu jappon ci xolam ne yenen imam yi ci liñu nek deugul dëgg la konoon li imam yoy wax ne julli bobu bax na ñom dina japp ne bax na ah oui ade ah wa wala de deng nga wa kullu hadha li lepp nak li ko war min mi ngi tukkee ci kasaratul jahli bëreeg réer ak ñàkk xam bal li fi nekk sameetu dégg naa ba'dhum lenn ci ñoom yaqulu muy wax minal xanafiyee ci xanafiyee nag la bokk mu naan fa in qaala bu waxee alxas mu xuloo wala bi kaza nangam xul naa dañuy wax kaza nangam maanaam moom surtout en général nag xanafiyee chafiyee lay nekk seen diggante radiyallahu anhum en général xanafiyee ak chafiyee rahmatullahi alayhim souvent ñooy am mu naan bu suñu xuloowaale bi waxee nangam ñu dañ koy tontu nangam maanaam <laughs> mel ni ay xuloowaale lañ te fekk duñu xuloowaale dañoo wuute gis-gis ci lii ci question yenn yi mu ne naawudu ñu ngi sàkkoo muslu billaahi ci buur yàlla mi na dalali ci cànkute amin fa inna li wér boor mooy xaalibu lépp ci almuqalladiina way wommatu yi mhm. xat dëgg-dëgg am mahum matal na maanaam wommatu laa wax sànq mooy topp suivisme boobu taqlid mu ne xat dëgg-dëgg am amahum làmb na leen mat ba matal leen zalika loolu watarahum da nga leen di gis yaquluuna ñu naan saaira mboolem aimatil muslimina imaamu jullit ñi ala hudan ñi ngi ci kaw njub min rabbihim bu tukkee ci seen borom dañ koy wax bi alsinatihim ci seeni làmmin faqat kese wata firru waaye day daw nufusahum seen bakkan minal amali ci jëfe bi aqwalihim ci seeni wax Hmm? waaw xool bi jëfewu ko wa iza turra bu ñu loroo ilal amali ci jëfe bi xawli ci waxu xayra imaam yi keneen ku dul imaamam yaqulu day wax naan nu xallidu ñi ngi taqlid ñi ngi wommatu topp fulaanan diw li darurat ngir loru maanaam ngir par nécessité lañ toppee mazhabu imam sàngam tey ci masala bi par nécessité min baabi darurat dañ ko dugal ci ci buntu règle usul boobu di wax naan ad daruraat lor yi maanaam nécessité yi tubeexu day tax a daganal al mahzuraat yi ñu tere woon mooy yu xaram yi en fait dafa am cinq ah, bii bokkul ci bii. bokkul ci déedéet déedéet. al <laughs> mashaqqatu tajlibu taysir nga ko jaawalee. subhanallah waaw dañ niroo nag en fait. Ah. moo moom moom règle boobu. al mashaqqatu mooy jafe-jafe. tajlibu voilà day xëcc voilà day xëcc ak taysir yombal. waaw waa bokkul en bii règle dafa dugg ci ronu règle ah. boobu. waaw ñu xaw a <laughs> voilà ñu xaw a kii. ah ak daruraat lor yi tubihul mahzuraat dañuy daganal li nga xamante ne moom mooy mahzuraat yi ñu xaraamal. comme tey boo nekkoon ba ci àll bi loolu exemple bu simple bi ci gën a yomb bi ñu ciy faral di joxe mooy koo xamante ne dafa nekk foo xam ne amul dara dara dara lu médd te bu dana dee ndax xiif dañ naan ko daggal ci médd yi nga togg nga lekk waaye doo lekk lu la lu la suur de ah non. da lekk ngir bañ a loru. voilà ngir bañ a dee ngir bañ a dee pas pour suur. Mhm. pour pouvoir voilà ba keroog ngay gis leer pour pouvoir tenir la dégg mu nekk waa ji day waxee loolu ka annahu kem nekk moom waqaa dafa rat fii ma'siyatin ci mooy yàlla bal li fi nekk fa fi'luhu jëfam ji hada bii le fait mu ne day topp beneen imam bu bokkut ak ci question bi mhm. ci parce que. da koy def rek par nécessité parce que lu nécessaire day tax ba lu xaraamoon sax dagan mu ne mu mel ne da koy def mu mel ni li muy def loolu après mooy yàlla la mu ne balli fi nekk fi'luhu jëfam hada boobu huwa moom mooy almasiyatu mooy yàlla alkubra bi rëy bi sax fa bu war na alayhi ci moom at tawbatu mu tuub wal istighfar te jàkku njéggalu min zalika ci loolu daa war a tuub jéggalu waat yàlla mm-hmm. parce que njort gu ñaaw ak xalaat bu ñaaw bi mu am par rapport ak imaamu jullit ñi mu ne fa innahum naka ñoom law kaanu bu fekkonte ne ñoom yaataqiduuna fas nañu ne ci seen xol annal a'immata naka imam yi alaahu dan ci kaw njub maa nafaru maa nafirat kon du daw nufuusuhum seen bakkan minal amali ci jëfe bi aqwalihim ci seen i wax li an na ndax kan alhuda njub laa tanfiru du daw min wu tukkee ci moom an nafsun bakkan mushahadatan bay aji gis ne lii njub na annahu nakan moom hudan loolu njub la fata amal kon settantalal wax ji intaha la wax dem bo jappé ni luy djubla kay do ko daw effectivement wala nga doon nekk effectivement par nécessité moo tax bi waaye effectivement si j'avais le choix lii laa doon def alors que da nga au final yamale ñaari wax yi voilà nga def li nga def la même la même chose la voilà dégg nga mhm. même bu ñu waxee ne lii moo gën a noot sax loolu dañ ko wax selon li ñu gis ci dalil mais jàpp nañ ne ñoom ñëpp li ñu wax ku ko jëfe yàlla dana la fay te amaan na sax ñun li ñu nootal moom nootul dégg nga nit ki noonu waxu nitu yàlla yi noonu lañ mel radiyallahu anhu wax wàllu yu mag yi même bu dul borom fuqaha yi ngir li ñuy wax yëpp dañ ko war a gëm am na ñoo xam ne fii subhanallah léegi li gën a yéeme mooy loolu mooy nit koo xam ne da nga naan ko Seydi Abdul Qadir al Jaylaani radiyallahu anhu nee na nangam muy dute ci wax jooju wala nga ne ko Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nee na nangam muy dute ci wax wala imam Ash'ari wala eh, Cheikhul Akbar wala keneen wala Serigne Touba wala Cheikh Sadbu wala ñeneen wala Cheikh Al Hadj Malick wala Cheikh Omar fuuti wala Cheikh Ibrahima Niass wala ñeneen wala yu mag yooyu radiyallahu anhu muy dute ci seen wax parce <laughs> loolu moo gën a garaaw ñeent nañ wute mais ñii duñ wute xam nga loolu la ci gën a garaaw fuqaha yi dañuy wute kii ne lii baax na kii ne la baaxul ah ndox mi mën naa cee jàpp wala déet kenn ki ñëw ne la baax naa man nga cee jàpp ki ci def ne la hey baaxul mënoo cee jàpp loolu fuqaha yi dañ koy def mais wàllu yi yàlla yi doo gis wuute ju mel noonu ci ñoom ànd ak loolu nga gis ñoo xamante ne <laughs> ah, xutba yu mag yi wala yu rëy yooyu doo gis wuute boobu ci ñoom ànd ak loolu ngay gis nit ki ñu wax ñu wax ko ne ko wala yu sàngam wax na nangam mu dute ci wax ji ànd ne moom xam na ne bokkutal nag daf cee dute parce que wóoru ko ne waajaa ko wala yu booboo a wax mais leer na ko ne moo ko moom gëm na ne waa ji yu boobu moo ko wax day dute ci ne lox loolu dëgg la. waaw non donc yàlla sàmm. allahu akbar allahu akbar. wa qaala wax na fi mizaani moom imam Asharaani ba tey radiyallahu anhu ci téere boobu misaanu sharia mu ne wa sameetu dégg naa sayidi sama sang sama sang alian alxawaas rahimahullah yàlla na yàlla yërëm ko taalaa ji kawe ji yaqulu mu naan isa abda bu feeñale ay matul njiitu almazahiba mazhabi mazahibam seenu mazhab bil machi ci dox gi ñuy dox ala qawaid ci règle al xaqiqati xaqiqa ma shariat ànd ak sharia kaana lool day nekk alaaman di aji xamal li ak bàyyam ñeel seen toppee ña leen di topp bi na annahum nekk ñoom kat kaanu dañoo nekkoon ulama ay boromi xam-xam bi tariqatayni ci ñaari yoon yi wa kaana nekkoon na tamit waaw ah mhm. loolu la maanaam gis nga bu ñu feeñaloon dëgg-dëgg bu ñu feeño bu ñu feeñaloon seen mazhab bi teg ko war na règle xaqiqa ak sharia yi ñu teg kon nit ñi dinañu mëna xamné ñi ndekete ñom imam yoyu mag yoyu imam Malik imam Shafi ahmad Ahmad imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi bon imam Abu Hanifa lañu waron waroon mo leen mag ñoom ñëpp ba pare tamit côté fiqh dëgg mo leen gëna a ñëw imam Abu Hanifa imam Malik Shafi Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhim parce que Shafi moo wax radhiyallahu anhu moo ne al fuqaha kulluhum iyalun ala Abu Hanifa ala Abi Hanifa moo borom xam-xam fiq ñoom ñëpp ay njabootu imam Abu Hanifa lañ dañ soxla xam-xamam fiq pour mën a dem rahmatullah alayhim il a la voie il ba pare moo leen mag cëru mag boobu tam dañ ko war a ah, imam Malik ñoom ñii ñeent imam yi ak ñeneen ñu dul ñoom radiyallahu anhum ñu tuddoon al Awzaa'i الثوري ابن عيينة حتى داود الظاهري إسحاق ابن راهوي etc رحمة الله على الجميع ñoom الطبري etc رحمة الله على الجميع ñoom ñëpp ay nit lañ ñoo xamante ni ñu xame woon sharia nii ba bënn ci dañ ci gën a ràññeeku rek mais noonu lañ xame woon xaqiqa noonu lañ feese woon bu ñu wane woon loolu nit ñi dinañ xam ne ndekete ñoom xamoon nañ ñaar yëpp mais am ci ñoom ñu xam moo da ngay gis wàllu yu mag yi dañuy nekk ci ci mazhab bi Seyd Abdul Qaadir Jilaani radiyallahu anhu li ñuy ponkal ponkal nekk xut bu lépp xambali la mooy taalibe imam Ahmad ibn Hanbal Allah maanaam ñi topp seen mazhab xoolal Cheikh Abdou Aziz Dabakh Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane ak ñaan radiyallahu anhu ajmain ابن عطاء الاسكندري ابو الحسن الشاذلي ابو العباس المرسي اك نين رضي الله تعالى اي مالكي لا الشعراني بي شافعي حنفي تبرتاد عبد العزيز واخناكو عبد الله اهم واخناكو نين دا نغي غيس تي بن تي بن مساله ما دم توك لو شافعي بي واخ لا لا waaw dinañ ci ñëw sax insha allah ah xoolal xoolal imam ibnul arabi ibnul arabi benn radiallahu anhu cheikhul akbar muhiddin ibnul arabi radiallahu anhu zahiri la zahirul mazhab la imam euh, koo ci jël mën nga wax te shafii yi moom kenn du leen compter Shaafi'i jaruñ ñu compter leen. rahmatullah al-Ghazali as-Suyuti Ibn Hajar al-Asqalani an-Nawawi toppal topp la ñooñu kenn du leen compter rahmatullah al eh? jami ngeen defe ne gaa yooyu ni ñu feese ci sharia ci xaqiqa bu fekkonte ne gaa yi ñu topp seen mazhab yi feese wuñu woon noonu nga defe ne danañ leen topp seen mazhab yi mu ne kon nekkoon na moom yaquulu di wax naan moom Seydi al khawas radiyallahu anhu moom magra la yasihu du wér khuruja di génn qawla wax qawl wax min aqwal ti wax al a'immat imam al mujtahidina mujtahiduna an shariat shariat abadan abadan an ahli al kashf wali manam ñooñu kashf yi qatibatan mboolem sen ñom ñep manam ñi am kashf yep xam nañ ni ñom seen wax han waxu ben imam ci imam yoy musul génn sharia ñi am kashfu dévoilement yàlla dina la wan léré affaire yi fi muy joggé han ñom ñep xam nañ lool muna wa kayfa ana naka sax muna kayma wax la lenn lu ndaw lo xamné bi ngi ko ci xamé wa kayfa ana naka yasixu lay wére xurujum seenu génn an shariati wala sharia bi maa ànd ak itlaahum se itlaahum seenu fenk seenu gis ala mawadd ci mawadd matière aqwalihim seeni kàddu minal kitaab tukkee ci téere yàlla bi wa sunnati ak sunna yenente bi sallallahu alayhi waa kashfu ñi am kashfu bu ñuy xool waxu imam ñu boonee ko imam Malik nee bu xoolee wax ji day gis ni wax ji génnee leeru wax ji ni mu demee ba branché wu ci téere yàlla bi ak bi sallallahu alayhi waaw seen wax du ci génn wa maa kashfi ànd ak kashfu as-sahin bu wér wamaa maa ànd ak nag ñoom non seulement ñoom bu ñuy wax ñoom imam yi bu ñuy wax seen wax bi dañ koy jële tey bu ñu taxawee wax ko lay ko ci alquran ak sunna day leer nga gis ko Imam non noonu belum. waxe du deug seen wax yi da ngay gis niñ koy layalee ci alxuraan sunu lu mu tumuranke tumuranke seen wax lu mu tumuranke tu boo ko déggee bu ñu la waxe fiñ ko tek ci alquran ak sunna rek sa xol bi fiix nga kontaan ngir yéemu ci miñu mané mane wax yi ci alquran ak sunna boko ben la wama ànd ak ne ñom dañu al kashfu sahih kashfu bu dévoilement bu leer ñoom dañu boromi kashf yu mag lañu woon wa maa ànd ak loolu nag an maa ijtimaa'im seen daje ruux ah ru dajeg ruux ijtimaa ruux dajeg ruux ruux ak ahadim kenn ci ñoom bi ruuxi rasulillahi ci ruuxu yenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa ak laaj gi ñuy laaj iyaaw ci moom an kulli shay'in wala bépp mbir boo xam ne tawaqafu taxaw nañu fii ci moom min al adilla ci ay ñu naan ko xal maanaam mooy lan mu ne ànd ak loolu imam yu mag yi ñoom imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi imam Ahmad rahmatullah ak ñeneen bul defee ne dañu nekkoon nii rek bu ñuy wax seeni wax yi tamit xam nañu affaire yi ci alquran ak sunna benn ànd ak am nañ kashfu bu leer bu leen mën a xamal ne ndax lii wér na wala wérul ndax wax ji mën nañ ko teg <laughs> waaw wala déet xam nga nekk nekk njiitu mazhab ne taxaw ne du ma topp mazhab kenn looloo tax mënta ne parce que foog nga boole yii en même temps pour nga teg sa mazhab foog nga boole ci mel nii mu ne ànd ak seen ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom seen ruux da doon dajeeg ruuxa yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc dañu am xam-xamu baatin am ba pare lu ñu gis te dalil bala ñu koy appliquer wala yooyu xam nga lu ñuy wax hal hada dañ ko laaj hal hada ndax lii min qawlika ci sa wax la bokk ya rasulallah ndawal yàlla am laa wala déet laaj ko ko te loolu kat yaqazatan fekk ñoom nelawuñu du gént de wa mushafahatan jàkkaarloo mu waxanteeg moom directement la bi shuruti ci charte al ma'rufati ya ñu xam bay na ahli kashf ci diggante ñu am kashf ñu am kashf xam nañu ni affaire boobu ni muy demee ak condition yi <laughs> wa kadhalika ni ki noonu kaanu ñoom nekkoon nañ def aluna hoo di ko laaj moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam an kulli moo xam ne fahimuhu dañ koo dégg mi nal kitaab bi ci téere yàlla bi wa sunnati ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam qabla lu jiitu an yu dawanahu ñu koy teg ñu koy bind fii kutubihim ci seen téere yi ànd ak loolu imam yooyu balaa ñoo bind benn mbir ci seen téere bu fekkente ne dafa am yàlla compréhension bu mu leen may à travers benn eh, aaya alquran wala benn hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañuy laaj yeneen bi ba pare sallallahu alayhi wasallam ndax ni ma dégg yi affaire bi baax na avant ñu koy bind ci seen téere yi kii mënut a mënut kii kii ñii ci njub lañ ne ah. c'est évident. c'est d'une évidence <laughs> wayu ah wayu wayu diinu lu kon bu boobaa nag ah laataa ñu koy bind wayu diinu te ñuy diine woo di toppe allah bur yàlla taala aji kaw di bii ci wax jooja ñu nga xam ne dañ ko comprendre wa yaquluuna te dañuy wax naan yaa rasulallah yow ndawar yàlla xat dëgg-dëgg fahim naa ñun dégg nañ maanaam comprendre nañ kaza nangam min aayati ci aaya kaza nangam wa fahim naa te dégg nañ comprendre nañ kaza nangam min hadis kaza ci xadisu sàngam min qawlika ci sa wax fil xadis yi fulaan ci xadis diw ga kaza nangam fa hal tartadi tadihi ndax yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam d'accord nga gërëm nga jooju wax am laa wala déet maanaam amul à waaw à peu près wa yaquluuna bu bu ko defee ñoom nag dañuy jëfe bi muqtada ca la ànd ak xawla woo waxam la waral waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa isharati ak junjëm la muy àndal maanaam la nga xam ne moo cay génnee mhm. selon lu yeneen bi saa li leen tontu ñoom loolu la ñuy jëfe mhm. ak li mu leen di orienté mhm. wa man tawaqqafa képp koo xam ne taxawu nga fii ma naaw ci lii ñu tudd min kashful aymat ci kashfu yi borom njiit yi imaam yooyu noonu bi ñu yi ñu amoon wa man ijtimaa'im wa min ijtimaa'im ak ci seenu daje gi ñu doon daje bi rasulullah ci ndawal yàlla la alayhi wasallam ah képp koo xam ne da cee taxaw daanu ah man day wax dëgg yàlla loolu moom man daal am naa ci ay dut maanaam xam nga nit mën nañ ko wax wax ji ni ko imaam yooyu noonu lañ meloon nga mu dute ci ndax amuñu nee ne amuñu lu leen koy wan nee na xultu loxoo kooku dama naan ko haada gis nga lii nii ma la wax dajeeg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam diko ko laaj ndax nangam wér na nangam wëru ndax nangam bi ma comprendre ci aaya sangam hadith sangam ndax conta d'accord nga ci wa wala dit mu ne gis nga wax gis nga lii nii yent bi sallallahu alayhi wasallam dina tontu ci lool mu ne min dafa bokk rek ci jumlati mboolem karamaati karaama al awliya yi wal yi yu di am bi yaqinin ci lu wér loolu moom d'accord nañ yàlla mën na ko may wàllu yum mu di ko am loolu moom d'accord nañ wa in lam yakun mu ne donte kooku bokkul nekkut al ah mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne wa in lam yakun su fekkente ne nekkut al aimatu imam yooyu al mujtahidun nga xam borom ijtihaad yooyu yu mag yooyu bu ñu nekkul awliya ay waliyu kon nag xamal leen fama amul ala wajhil ardi ci kaw suuf waliyun waliyu abadan ba faaw mukk waliyu musul am ci kaw suuf kon ah xanaa gisoo xutbu yu mag yépp ñi ñëw seen ginnaaw dañuy topp seen njiir yi loolu doyul pour prouver ni ñoom ñoom duñ n'importe qui moo tax waa ji doon wax ne moom sëriñam bi nee na ko yow euh, euh, nee na ko man imaamu Malik tolloon ak Seydil Malik ci fal toll na fa ci ijtihaad ak kii yow da ngeen Malik nañ ko teg ne waaw boo nee toll nga fa Seydil Hadji Malik toll aw ma lu may warante ak yow parce que xaw ma ci dara mais imam Malik leer na ma ne moom ah imam Malik

parce que dañ la gis nga kawé ay mbir waaye nañ tek né imam malik mom c'est sûr que meloonu mom kok mom leer hmm. ah non imam malik la ilaha illa allah la ilaha illa allah cheikh manam hmm. non la ñu da ngeen di fontu nan ngeen mëna waxé lool hmm. ba paré gaay dañ ko gëm nak gëm ñu seen jëriñ yegg na fofu ah si si dañ koy wax mës nañ ma ko wax xam nga ah si loolu toog nañ toog nañ ah si toog nañ voilà toog nañ gaa yi kii ñu wax ko fekk dañ ne woon seen bi nangam la wax ma leen loolu dëgëru ndax nangam ak nangam moo dëgër fekk nag ñoom waxu guñ ma woon ne ma sëriñ bi sax ko wax non déet nangam nangam mais comme d'accord wuñ ci après fekk xam nga lan la <laughs> dane nit ki su ñëwee julli fekk imam bi xutba mu julli ñaar rakka kooku daa am bàkkaar li mu def du du yoon ay ay ay la ci jële waaye du ci jële ay tiyaaba man ko def suñ bi bul wax loolu bul wax loolu parce que loolu wax bu garaaw la parce que tout simplement moom maalikul mazhab la te maalikee gën a noot ci ñoom mooy ne dañ koy bañ mais bu mu wax bu mu yegg ci ne day am bàkkaar nani ci suñu mazhab lii dañ koy tere fan lañu bind ci mazhab bi ne ko def dangay am bàkkaar ay mbugal nga ciy jële fan lañ ko bind ci téere mazhab bi ma ne ko bu lox moo kii nag après nag gars mu ne way sëriñ bi kii moo ko ko jàngal nangam nangam xaw ma sax ba xam sëriñ baa ko wax ndax loolu moom dese na maa leer ndax sëriñ bi quand même am na voilà mm-hmm. ba yaakaar naa du wax yenn yi ko mais après nag waa ji keneen ki daal ne waaw man ñu wax wax waa ji loolu daal pour dëgëral leen mu ne way kii xam nga du amul seede nangam man eh, kii démb rek bi ñu woowee sëñ bi nangam kii nee na fi imam Malik ak Seydi Hadji Malik fa ñu yeggoon radiyallahu anhuma yegg yegg yegg ci ay ijtihaad yegg naa fa tegg na tax may topp seen ginnaaw ba léegi xaw ma nag ba xam moo ko wax wala déet loolu defe na maa leer waaye waaja moom loolu la wax ak ak Moustapha ni nga expliqué <laughs> nekkul mu taxit non non kooku leer na ma man li ma leer mooy waajooju moom yëg sëriñ boobu yéeg foofu kooku moom man moom leer na ma man ndax xam naa bu baax ay preuve yu leer yu may wan ne moom yëggu waaw léegi nag <laughs> et cetera yàlla nañu yàlla samba ala kulli xaal mu ne mais mu ne wàllu yu nañ xam loolu wal ñooñu bu fekkoonte du ñoon ay wàllu yu mooy wàllu yu amul ci kaw suuf mu ne waxat dëgg-dëgg istihara siiw na an kasiru wàllu ñu bari ci minal awliya maanaam ci ñu bari tukkee ci ñu bari minal awliya ci wàllu yàlla alladi bi nga xam ne hum ñoom duuna ñoo gën a suufe martaba al a'immata imam yu mag yooyu al mujtahidina borom mujtahiduna yooyu fil maqaami ci maqaama bi yaqiinu ci lu wér na ay imam yu mag yoo xamante ne leer naa ne ñoo gën a tuuti imam Shafi'i ñoo gën a tuuti imam Malik ñoo gën a tuuti imam Ahmad ñoo gën a tuuti imam Abu Hanifa leer na kooku leer na <laughs> انهم نكال داو كانوا نيكون يجتمعون بالدجاج برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لو بري ويصدقهم تدب لين دون دغل اهل عصرهم سين نيب جامونا على ذلك تي لول انتهى فلا وخ جيخ لول دغ لول دي دغ لا كاي امنا امام يو امنا ньо خامتاني لير لا لين ньо غلو توتي امام يو نو te ñoom daan nañ wax ci seen jamono ne daan nañ dajeeg yeneen bi sallallahu lu bari nit ñi di leen dëggal ci loolu ñëpp xam ne waa wax na dëgg imaam wala yu bii wax na dëgg te kooku sikk nekku ci ne boo ko tegoon ci kanamu kenn ci imaam yi ñu roon tudd sànq ku tuuti la ku sew la Abdul Aziz Dabakh ci la bokk voilà Cheikh Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu imaam As-Suyuti ak ñeneen rahmatullahi ñu dajeeg yeneen bi sallallahu mais mooy ñëw ñu rek ñëpp rek ñu ci ñu ci gën a tuuti ñu ci imaam yee raw ñi ñi ci raw imaam yee bariwuñ. mën na nekk ah. non non Cheikh Abdou Aziz Dabala daal mooy mooy turandoo ah. naar la fas la dëkkoon voilà. mooy voilà <laughs> benn xut bu la woon moom lañ ko tuddee. mais sinon moom Abdou tamit radiyallahu da doon daje yeneen bi sallallahu alayhi moom waaw mi ngir ay rek bi ci gën a preuve bi ci gën a leer mooy moom ci boppam moo wax ne gis na ko man dégg naa ko wax mu ne teg weer bii ñu nekk rek weer bii rek tase naa ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ca jag sax toog naa ak moom lu bari ak ak ak ak ak mu ne ak Cheikh na Tidiane. ci wow baatin. waaw toog toog nii ni may lay gisee. vision ñuy waxtaan ni du gént de gént. gént ñu de nii ah oui loolu bari na loolu ak a bari loolu jarul sax nga yegg ma xam yooyu pour man am ko fi ñoom El Hadj Abdou yegg jarul sax nga fa yegg loolu bari la loolu ñi ko am dañ bari sax man fii ñu dëkk ni fii nii hmm. kon bii hmm. ñu ne nii nii ñu ne xam naa fi ñoo xamante ne gis nañ ko toog ak yeneen bi sallallahu alayhi ñu bari fii fii ci ju jàkk ji ji nii ñuy jullee ah oui xam naa leen. mu toog ak yeneen bi. ah waaw. sallallahu di waxtaan ak moom ak lépp. mais ci wàllu baatin. sëñ bi sëñ bi da ngay dute ci loolu. Eh, non baatin mooy lan. Ah, maanaam ñoom nag buñ ko gisee am na ñeneen ñu ko dul gis ñoom buñ ko gisee ça veut pas dire que képp ku fa ne da nga gis. ça veut pas dire ça ay niveau la. Ah, waaw waaw mun nañ toog ci di waxtaan. waaw Moustapha gis yonent bi mm-hmm. ko gis. Ah, waaw loolu mën naa ne loolu laay wax loolu laay wax bàcc. waaw loolu mën naa ne waaw. waaw ah, du jamonoom quoi. waaw du jamonoom. waaw moom laay wax. waaye comme yonent bi salaahu salaam moom day dund jamono yëpp. Hmm. en réalité génnuk ak làqu rek la. Hmm. daa làqu rek. Hmm. ruh bi rek mo tàqali ko yaram bi hmm. way jëmm ji mu ngi ci àdduna bi waye yenen bi sallallahu alayhi wasallam fo dem foo mënti nek hmm. wàllu yi dañ koy gis ñu bari ci ñom dañ koy gis ba legi ni ah oui diko gis mo lay leeral ay point ndax nangam lan moma ñi moma moo jaaxal mu wax la mu wax la ko lolu bare bare la hmm. lolu ba legi mi ngi am bari na sax dafa bari sax ñu ko am dafa bari sax ñu ko am duñu benn duñu ñaare ñu ah baree baree baree baree baree lañ waaw ñi ngay tase ci mbedd bi la ñi ngay gis ci métro bi ñii di tase ñoom hmm? di bokk ñoom biis waaw hmm? ah, ñooñu la c'est pas quelque chose on va dire dëgg la nag may mais loolu bari la c'est que ñu ko xamul nag dañuy defe ne amul wala bariwul wala yooyu mais ñu bari la <laughs> yàlla yàlla am ala kulli xaal kon xam naa ne ñoom foofu euh, yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu ñu tëjee loolu yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne bis bu jot ñuy toog ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan moom yooyu radiyallahu sallallahu alayhi wasallam yàlla nañu yàlla boole ci ñoom ci barke moom sallallahu alayhi barke téere bii ak ki nga xamanteni moko moo ko bind radiyallahu anhu wa ardaahu nabi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wallahu ta'ala a'lam